jërë ngeen jëf ñi doon taal dëkk bi keroog l'observateur nee nañu sawara waa ngi bëgg a tàkk ci seen kaw te bu sottee du jur jàmm ci ñoom moom l'observateur mi ngi ñuy waxi ne yëf mi ngi bëgg a mujj ci taalalante ndax siège bu parti Pastef bi ci VDN bi am nañu ko taal kër Aïda Mbodj it am nañu ko taal am na it juróomi nit yu demoon ca Sicap Baobab doon bëgg a songi kër Barthélémy Dias waaye l'Obs nee nañu wax na leen xàtt ndax jàpp nañu leen benn waay bu ñu naan Biram Diagne dib agent buy liggéey ca mairie juróom-ñeent Babacar Dramé fukkeet ak juróom-benn ak ku tudd Ababacar Diallo toll ci fanweeri at ak juróom-ñett jàppkatu jaan jaana koy mujje Vox Populi nee nañu cocktail molotov yi ñuy wax ci réew mi ñoo ngi dal ci ko opposant yi quartier général bu parti Pastef kër Aïda Mbodj ak kër Waly Diouf Bodian am nañu leen songu taal leen ak i cocktail molotov libération nañu ginnaaw isolé gi ñu isolé Ousmane Sonko tëj ko këram munta dem munta dikk ak manifestation yi fi amoon ñi ñuy teg loxo ci réew mi seenub lim ma ngay gën kii di Midou woon ca télévision Walfadjri ba mu paree émission ba ci la ko ñu gën koo xam ci doomu Pikine police bu ginnaaw ray jàpp na ko Seyni Sène ma nga ñu téye ci gendarmerie bu Foire Ibrahima Gueye mi coordonnateur bu parti Pastef ca Vélingara Mamadou Lamine Sylla di garde corps Ousmane Sonko ak El Hadji di sëfaru Ousmane Sonko ñoom ñëpp keroog ba ñuy jàpp Ousmane Sonko di ko indi Ndakaaru ca lañ leen jàppale libération mi ngi ñuy xamal ne bu ñu moytul danañu yokk seenub garde à vue vice coordonnateur bu yóbbu tuumay appel à l'insurrection la ñu koy toppee Biram Diagne di benn waaye bu ne agent municipal la buy liggéey ca maire bu maire Mermoz-Sacré-Cœur waa sûreté urbaine wàcc nañu démb këram ca wakaam jël ko yóbbu ndax nee nañu samba bu yi demoon démb bëggoon a kër Barthélemy Dias moom waa ji moo leen yónni woon sour soi nañu sûreté urbaine fees dell la def jamono ji jàpp gi ñuy jàppe ñu doon manifester ak ñi doon caxat-caxatee dëkk bi mi ngi mel ne tulleeg màlle ñaar fukki nit ak juróom-ñett ñuy teg loxo di leen tuumaal ne ñoo doon caxat-caxate ak saax-saaxee travaux bi nee nañu am na ci ñoom ñeent ñoo xam ne nee nañu seen loxo génnul ci li kër ministre Matar Ba am na it benn waay bu ñu naan Saliou Sarr dib agent UCG buy liggéey ca mairie bu Sicap Liberté sour soit nee nañu moom bi ñu koy jàpp ñu ko jàppee ca Sacré Cœur fital di pistolet automatique ak i balam la ñu fekk ci moom liise ko fàttali ñu ne ñeenti nit yi demoon doon songi kër Barthélemy Dias garde corps yu Barthélemy Dias yi ñoo leen jàpp wulli leen ba ñu ne waale ñoom ñooñee ak ki ñu ne moo leen fa yebaloon liise ko nee nañu ñoo nga jàpp ci projet Ousmane Sonko bi gis nañu ne moom usman Sonko mi ngi déggante ak ñu jege lool président Macky Sall bu weesoo loolee ca téléphone yi Ousmane Sonko yi loxo yoon gis nañu ci ay preuve yuy dëggal ne am na ay journalistes yu nekk ci réew mi yoo xam ne daanaka Ousmane Sonko moo leen yor moo leen yoreel seen kër ndax ay Wave ak Orange Money yu mu leen daan envoyé lëkkati yee nañu bari na ci réew mi ñoo xam ne ba ñu yégee ne téléphone portable yi Ousmane Sonko ma nga ca loxo yoon seenu fit toogatul toog waxtaan mu di dialogue bi njiitu réew mi woote ci réew mi tey lay tàmbali Soleil national nañu président national moo koy lancé tey ci ngoon gi ca palais de nag ci diiru fukki fan ak juróom ñu fas yéene waxtaan samp ay commission commission bu ca nekk ñu dénk leen ni ponk yoo xam ne ak déggoogu sax la ñu ciy séntu Sud nañu jàmmi réew mi ak dallu réew mi ci dialogue bi ci la ñuy xamee fan la tollu président Macky Sall la Sénégal dañu wax ne ñi war a daje ji ci dialogue bi ñaari défi yu mag ma nga leen fay xaar ñaari kaa yu ñu war a mu di kaabu Karim Wade ak kaabu Khalifa Ababacar Sall li ñu gis ci dialogue bi le témoigné nee moo di mennam réew ñaari dialogue ndax ci jamono ji Macky Sall woote ab dialogue ca palais ba waa wax ne bi akub dialogam ci bii boor waa ak seen dialogue ca bee ku ci nekk ak dialogam. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir su nekk ay xibaar yu wér te ci réew mi ak ci réew.